alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyi rahma wa kaashifi l umma wa shafii l umma sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi l aimma wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmil qiyaama mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tan leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu Walfadjri yéen ñëpp rekk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 ilimaan yi àndoon ak ñun ci julleeg fajar gi ñi bàyyee rawatina borom xam-xam ya nekk ca darsu ba di lal di jàngale rawatina sëñ daara ya nekk ca daara ya di jéem a mokkaloo taalibe yi téeréeb yàlla bi ñooña ñëpp yal na yàlla wattu leen comme ni wattoo téeréem bi ba tax na daal damay wax ne yal na yàlla wattu ñiy bëgg wattu téeréem bi comme ni mu wattoo téeréem bi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yal na ko yàlla def di sofak ak yow li ma sosoon ak yow te mooy commencé la tukki mi muy arañaan ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mii nga xam ne mi ngi xew ñii fukki at ak ñaar ca yonantoom nga tolloog juróom fukki at ak ñaar ca dundam nga tollook weer wu ñuy tuddee weeru rajab muy rajabul fardi nga xam ne weeru yàlla la noonu la ko yonantu bi waxee weer la woo xam ne même ba lislaam ñëwagut jamonoy jaahiliya mosaan a jot duñ xeex dañuy téye ngànnaay yi weer la woo xam ne dafa beddeeku ñetti moroomam ya waaye ñett yëpp a ànd muy asfurul xurum yi ñett yaa ànd dénga ko muy diggi beeg tabaski beeg tam xarit bi waaye moom mu ñëw beddeekul boppam muy rajabul fardi beddeeku googu mu beddeeku ñetti moromam yaa tax ñu koy tuddee rajabul fardi ca weer woowa ca ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar dëppoo kësu moo tax léeg-léeg nga dégg ñu ne kas fu rajab yàlla may ci góor ak yàlla gu tedd gu ci gane ci àdduna muy sëriñ fàllu mbàkke mi daan wax ne sama bët bii daal manuma ko manta tege ci ku ñuy mbugal ba tax na am ay nit ñoo xam ne dañoo waxoon dañoo jalgati ñi leen di dóor mu ne wax leen luñ luñ sànq ñëw leen ma fay ko sama bët daal mënta tege ci ku ñuy mbugal ngir xol bu yaatoog yërmande yàlla dëppale juddoom nga moom tamit ak juddoog julli dëppale juddoom nga ak rañaan ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa ba tax na bu jotee lee léeg nga dégg ñu naan kasfu rajab bi jot na boo ne kasfu nag day xëpp ndax kasfu moom xajut ci weer wi ndax boo ne kasfu rek wax nga junne ak téeméer ndax siin su tooy junne la kaaf ñaar fukk la faa juróom-ñett fukk la kon loola xajul ci weer xajul sax ci at mi kon su ko defee ndax at mi trois cent soixante-cinq jours loola xajul ci kon moo tax kon këstu la ñuy wax muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la tombeeg bisab altine gannaaw bi nga xamee na nii gexe passé na am na ñu wax ne sax booba minuit jot na ci la yàlla yónnee jibril pour mu war a jël benn daaba ci daabaay aljana yi ñu ko tuddee buraaq gaawaay ba mooy bët ba lahab na ko indil na ko yonantu bi fekk ko ca jàkka ja ci néeg nii mu xoo ko nag mu jug mu indi ndoxam sam-sam xar dënn ba raxas ko génnee ci lam ca génnee dugal ci lam ca dugal ngir mën a àttan leer yi mu taxawal dahaba ja ñeenti malaaka yooyu yëpp escorté ko jibril ak mikaayil ak asrafil kenn ku ci nekk ànd ak juróom-ñaar fukki junney malaaka su ko defee jibril téye lahab ga israfil téye teg ga asrail nekk ca kanam noonu lañ ko escorté su ko defee ñu war a dem nag ca baytil muqaddas loola bisab altine la tombee li ko waral yonent bi léppam altine la altine la juddu altine lañ ko ngéntee altine lañ ko yónni altine la gàddaay altine la yegg ca gàddaay ga altine la rañaan altine sax ci la wuuji boromam kon moom léppam altine la safaanab Seydi Ahmada Tijaani la Cheikh na Tijaani léppam alxemes la alxemes ci la gane si àdduna ci weeru safar fukki fan ya ak ñett mu ngi wuyu ji boromam ba tey maanaam alxemes ci weeru sawaal muy wari fukki fan ya ak juróom-ñaar maam xalifa na ñi ngi koy tënkee jaadahu dan mu tolloog ama yashkur mu ne yashkur lañ koy tënkee muy mille deux cent trente moo tax mu ne fii aami yashkurin fii shawalin jaadahu dan yowmal xamiisi ataahul mawtu wa sharafu loolu ma ca kibritul ahmar ca bunta faiye ba ca lay nettalee loola kon moom léppam alxames la cheikh na tijaani alxames la suñu maam aadama léppam aljuma la aljuma lañ ko bind aljuma lañ ko dugal aljana aljuna aljuma lañ ko génnee aljana aljuma la wàcc ci kaw suuf aljuma la commencé tuubam ga aljuma lañ nangu tuubam gi gannaaw ñeent fukki at waaye tamit aljuma ci la wuyu ji boromam kon day am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo topp bis wala bis topp leen am na ki ñoo xam ne dañoo topp weer wala weer topp leen am na ki ñoo xam ne dañoo topp jamono wala jamono topp leen loolu nag ku mën a settantal seet sa dund gi da nga ci xam yii nii yow ban nga ci da ci xam tamit yii nii yow kan nga ci ndax balil insaanu ala nafsihi basira yéegal nañ ko ca daabaja ci bisab alxemes gi ci guddi gi dahaba ja départ na ak jibril ma ngay dem gaawaay ba mooy bët ba dana am nag loo xamee na nii dana ko romb xanaa dama lay wax lam romb ca suuf bala ma laa wax la muy romb ca kaw bañ ko rañaanee mu ne romb naa yonent yàlla Muusa muy julli ca xabroom ba kon gaay yàlla yi dañoo toxalu waaye deexuñu comme deex ak dëgg-dëggal boo nekkee boo doon jaamu yàlla fii ci kaw suuf boo dee nekk barsaq jaamu yàlla du fa forcé waaye boo jaamoo yàlla sag yiw day gën a dolleeku ndax nga nekk barsaq ñëpp ngay xaar kenn xóoloogut ne danañ texeem duñ texee ci am nen lañ toog su ko defee nag ñi ca bëri dañuy continuer di jaamu yàlla mu yokkute seen yiw woowa noona bu ëllëgee ñi man leen koo fay dana bëri ku yàqule woon ma nga defaroo ji barsaq dana bëri ku mànkile woon ma nga matalee barsaq dana bëri ku daggoon ma nga jokkoo barsaq dana bari ku bonoon ma nga baaxee barsaq moo tax gaay yàlla ya foofa jaamu yàlla du fa forcé waaye ña ngi koy togg seen bopp ngir bëgg a yokk seen aw yiw ci loolu ngay déggee comme dañ fay baaxee di fa defaroo foofa la yàlla yenki ca barsaq ba yaayu sayduna muhammad ak baayam ñu tudd baatu seede bi tudd ak dëgg-dëggal continuer seen dudd ga fala yàlla yenki wala abu taalib mi sonn ci moom mu tudd baatu seede bi tudd ab dëgg-dëggal continuer ci dundam ga loolu la imaamu suyuti yu gëm su ko defee kon nag barsaqa ngoog dafa ñun dañoo xam ñetti dund dund ak àdduna dund ak barsaq dund ak àllaaxira dund àdduna gi bakkan ak rooxu ñooy xeex kenn ku nekk ne dooma man ku daan sa morom sa morom furle ku ci sàggana sàggan nag ba sa bakkan gañe sa rooxu nga dem safara ku góorgóorlu ba sa rooxu gañe sa bakkan nga mujj texe suñu demee nag fële ca barsaq dund ak rooxu moo fay not bu ñuy mbugal ak bu ñuy bànneexal ak lépp rooxu ga moo koy yëg su ko defee nag su ñu demee ba ca àllaaxira ëllëg war a dem jana yàlla nañ ci yàlla boole ñey dem safara dem safara foofa dund ko bakkan moo fay not bakkan moom day bànneexu rek ci lekk ci naan ci yeneen xeeti bànneexu ya bu ñuy mbugal tamit bakkan ba dañ koy mbugal ànd ak loolu lépp dana jànkuwanteeg lu koy tax a dee waaye du dee moo tax alquran ne summa laa yamuutu fiha wala yaxya la fay bakkan di bànneexoo tax buñ duggee foofa ba pare dee mi doon raye foofa lay door a deexee yonum too ko wax sallallahu alayhi wa dañu nataal dee ci meloom am kuy ci diggante aljana safara yuuxu waa aljana yi ne yéen waa aljana ñu ne labayka wa saxdayka yaa rabbi mu ne leen dund leen ci bànneex ci lekk ci naan ci soxna yi ci solu ci lu ngeen bëgg dootu leen deeati dee mi doon rayee ngi nii ñuy rey hee yéen waa safara ñay wax la bayka wax ko ñay xuyu xuyu yal na yàlla musal ñu ca seseen bëkk néeg ba di Malik ñun suñ bëkk néeg ba di Ridwaan gaaye xuyu nag mu ne ah nekk leen ci mbugal ci naqar ci coono ci jafe-jafe dootu leen deexati dootu leen dund dund gu leen di jariñ dee mi doon rayee ngi nii ñuy rey moo tax feeg dee deexagut kenn mënta mucc ci dee bis bu dee deexee nag ci la ñu door a mucc ci dee loola yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam kon buñ duggee aljana dunduga bakkan moo fay gëna a rooxu su ko defee nag bànneexu rek jaamu yàlla amut fa du julli du xoor du joxe asaka waaye nag buñ demee barsaq jaamu yàlla dugul fa for waaye kum neex nga def ko su boobaa tamit dañ la koy bindal ci sa carnet jëf te ñu bëree nga koy def moo tax léegi-léeg nga dégg ci xarmeel yi noddu léegi-léeg nga dégg ci xarmeel yi ay liqaam Saïd ibnul Musayyib moo waxal boppam ne saa yu ma ñëwee guddi ci xabroob yonumtu bi danaa dégg noddu ci lay xamee sa waxtu yu jot na danaay dégg liqaam dana xabru gaayu yàlla yu bari da nga fay toog dégg kurus yuy dal peri kurus yuy dal loolu nit yàgg na koo dégg ci xabru maam Alaaji Abdoulaye Niass bi nit yàgg na koo dégg ci xabru maam Khalifa bi dégg kurus yuy dal nga dégg peru kurus ya carrément di dal mu tekki ne kon ñoom tamit ña nga fa waaye ña ngay jaamu yàlla ngir yokk seen a yiw ndax xelam kenn dalagut su ko defee nag feek jëlagoo sa loosuma ci aljana sa xel bu mu dal même bu ko jëlee bu mu dal la yonentu yàlla Moussa waxoon ñu ne ko du tax mu ne sama maam duggoon na te génnaat na kon mën nañoo génnaat Aboubacar Siddiq ne sama xel du dal feeg waxuñ ma entré sama ndeyjoor ba dugg ma ne bisimilah du tax sax ma wóolu ndax mën naa génnaat ndax ndeyjoor mën naa fekk càmmooy càmmooy mën naa fekk kenn kon nag laa yëmanu makarallaahi ilal qawmul xaasiruna kenn ki ñun war ta njaayam yàlla yow daal foo tollu del tiit ba yaakaar ne buy kenn dem safara yow lay doon léegi léeg del bëgg ba yaakaar ne buy kenn dem aljaana yow lay doon nga boole xaw fu ak rajaa boo demee ba toll ci sukkuraat nag sànnil fële ragal de yaakaar ne lu muy bëri bëri bëri bàkkaar tey ma fanaani ci buur bu baax buur bu mën a ganale buur bu mën a yërëme buur bu bëri teraanga ba tuddee boppam ne innahu huwal baru rahim fa la ñuy war a fanaani tey mu teral ñu ba ñu rus yàlla nañu tenal kon yàlla na yàlla defal ñu. fan ba ñuy njëkk a yendu ci bàmmeel wala ñuy war a faa fanaan yi yàlla nañu gënal place bu ñu mës a yendu ci àdduna bi gënal ñu place bu ñu mës fanaan ci àdduna bi yàlla na yàlla defal ñu ko defal leen ko defal ko waajur yi defal ko mbokk yi defal ko mbooleem jullit ñi fu ñu mun di nekk ci àdduna bi kon nag euh, dundu gaa ngoog alburaaxa ngoog yégal nañ ca yonantu ba départ na moom daal dana am loo xam ne dana ko romb dana bari loo xam ne dana ko romb xam naa dama lay wax la muy romb ci suuf door la wax la muy romb ci kaw asamaan boo demee ci xadis boo xam ne abu yaxla moo ko génne ak bayhaqi yu ñu jëlee ko ci xadisu anas ibnu malik moo wax ne guddi gi nga xam ne dañoo rañaanee yonantu bi yonantoo wax ne romb na yonantu yàlla Muusa ca xabroom muy julli laylata usriya bihi marra ala Muusa wa huwa yusalli fi qabrihi loolu Bayhaqi yu wax na ko Abu Yaxla wax na ko mu bokk ci xadiisu Anas ibnu Maalik yi moom sax tudd nañ ne ci hadis bi ne xen na ko ca buraaq wa zakara lii annahu xumila ala alburaaqi fa qaala fa aw awsaqtu alfarsa aw qaala daabata kon loolu wax na ko su ko defee nag kon wax nañ ko ne ko buraaq mu mu melalal ñu ko mu ne dafa weex am na nag ay tipp-tipp kon lii yonent bi romb na ko ñaareel bi yonent bi romb na ba tey ci suuf ci hadis boo xam ne ibnu murdaya moo ko génnee mu bokk ci ci yoonu xataadatu ak suleymaan taymiyu fu ko defee tamit ñu jëlee ko ci ali ibnu zeydin ñu jëlee ko ci anas mu jëlee ko ci seyduna muhammad yonentoo waxal boppam ne guddi giñ ma rañaane romb naa aw nit ña ngay siso seen tuñ ya di ko susaa di ko siisoo safara siisooy safara yuñ tàngal ba mu weex tàll la ñuy jël di ko daggee seen tuñ yi waaye nag saa yuñ daggee tuñ wa rek tuñ wa dellu siyaat suñ daggee rek tuñ wa dellu siyaat ma laaj jibril ne ko ñii ñu romb ñoom ñooy ñan mu ne ma ñii daal ñoo daan ñi daan joxe discours di waaraate kat yi bokkoon ci sa xeet wi daan waar nit ñi ba ñu waaru te fekk ñoom seen bopp waaru huñu daanañ digal nit ñi lu baax waaye daanuñ ko def daanañ tere nit ñi lu bon waaye ñoom daanuñ ko bàyyi te loolu bari la nañ ko lool ci jamono ji ñoo xam ne lañuy wax gëmuñ ca dara lañuy ñuy wax parewuñ ngir def ko def nañ ko muy jëmmi fiir rekk guñ bëgg a fiire nit ñi di ca dund ci àdduna bi su boobaa loola da leen ni xeñ ñi mën a dund ëllëg ci àllaaxira ja moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñoom romb naa leen ñiy dagg seen tuñ di ko daggee bi maqaarida min naarin kullama quridat aadat fa qultu man haulaai ya jibril ummatika yaquluuna ma la yafaluun te loolu melokaanu alquran na nga koy bañ ba ne at ta'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlubuna al-kitaaba afala taqiluna kon loolu lu jar a baxi la ah beneen bi tamit baa ngi wax li romb ci hadis boo xam ne ibnu Maaja moo ko génneeg Hakim ak ci nawaadirul usul ak Abi Hatim wax na ko ibnu Murdaya wax na ko mu bàyyee ko ci yoonu Yasid ibnu Abi Malik mu bàyyee ko ci xadiisu Anas yi Anas nag mooy ku doon liggéeyal yonentu yàlla Muhammad liggéeyal na ko fukki at mu ne te yonentu musul wax baatab lima musul ma koo wax te liggéeyal naa ko fukki at su ko defee tamit loolu moom mooy génnee ci xadiis bi mu ne guddi giñ ma rañaanee gis naa ñi bind ci buntu aljana ne a asadaqatu bi ashri amthaliha wal qardu bi thamaniyata ashara fa qultu li jibril ma baalul qardi afdalu min sadaqa qaal li anna saaila yasalu wa indahu wal mustaqrid laa yastaqridu illa min xaajatin kooku ibnu maaja tirmisi yooya boo demee na ko ci fekk ci nawaadirul usul mun na gis naa ca buntu aljaana ñi bind fa ne ku saraxe benn man yàlla ma fayee la fukk bu nit ki amee ci yow soxla ñëw leb la nga lebal ko te yàlla tax dërëm boo ko lebal danaa la ko fulal fukki dërëm ak juróom-ñett kon leble moo ëpp yool saraxe man ma héemu lool laal jibril lu ko waral mu ne ma waaw nit ki mën naa laaj te fekk la muy laaj amut ci soxla waaye koo gis muy leb rek la muy leb lu ko soxlaal la nit du leb mukk lu mu amut soxla kon nag looloo waral daal loola gën a gën a foor ba tey tamit boo demee ci hadis ci ibnu Murdaya wax nag ko mu jëlee ko tariqu mu bàyyee ko ci yoonu Muhammad mu jëlee ko ci Anas mu ne yonentu nee na ba demee ba ca sidratul muntaha gis na benn lalto ci wurus lañ ko liggéey ña ko tapp wéer ko ca sidratul muntaha foofa loolu gis na ko ba tey tamit yonantu bi sallallahu alayhi wa nee na biñ ma rañaanee am na xet goo xam ne xeeñ na ma moo raw xet ak séet xam nga séet nag rawatina muy séet bu man boppam cuuraayam yooya dana nekk xet goo xam ne danay neex jëkkër yu bari ba tey bokk na ci moom yonantu bi nee na sallallahu alayhi moo wax ne ci rañaan gi gis na boromam ibnu saadu wax na ko saïd ibnul mansour wax na ko Bayhaqi yu wax na ko ibnu Asakir wax na ko ci yoon woo xam mu ko jëlee ci xaaris ibnu Ubayda abi abi Imran Juni wax na ko jëlee ko ci Anas mu ne daal fi ma nekkee ne maa ngay nelaw rek la ma Jibril ñëwal ah, maanaam mel ni ku ma cojjal mu ma jug ci sama diggante ñaari mbagg yi la ma cojjal ma jug daal gis ma jug rek ci jëm ci garab goo xam ne ay picc a nga fa bu ko defee mu jékki ca ca genn ga ñaari garab la man ma toog ca geneen ga su ko defee léegi ñu yëkkati ba ba ma ba diggante penkook soxu lépp maa ngi koy gis may dox ba laal asamaan ma gestu tabaarakallaahu ñi am luñ ma leemal ci ngëneelal xam-xam ak ci hubbeeku ci laa gis ak leer goo xam ne gu màgg la hijaab nekkut ca ndeke mooy raf-raf aw wurus la ak yàqóot ñi wax yu ma ilaa macha allahu an yuuxaa ñi wax yu ma lu soob yàlla mu wax yu ma ko loolu ma ngay nettali tamit ca xew-xew baag la ca xaju kooku Bayhaqi yu wax na ko solo ko ci Haaris ibnu Ubaydi noonu ngay toppee kon ba mu jeex ci li nga xam ne gis na ko gis na tamit ay nit ñoo xam ne dañoo takk seen bopp kawar ya ñii yandam talu su ko defee mënuñoo yéeg mënuñoo wàcc ñi leen dóor ay yar mu laaj jibril mu ne ko ñii daal ñoo ngi doon jokk seen kawar ya loolu wax na ko ko kon jokk dafa xaraam ak loo mën a jokkee yaa xam comme yow boo jokkoon dañ laa wax nga muur ko loo cay loo cay jokkati comme da war a rek muura rek mu jeex boo jokkee nag boole koog muuri ko ñaari bàkkaar bàkkaarab muuri ak bàkkaarab jokk te ku mu ci ñoom ñaar bàkkaar yu mag a mag a mag la su ko defee même jokk bu daganoon ñàkk gim lay ñàkk mën a matal sa farata yi ca njàpp ca sangaayal janaba ya rek tax na mu xaraam te loolu su ma ca yeggee danaa ko gën a farañ fànceeg la ca boroom xam-xam ya wax su ko defee kon nag gis na tamit ñoo xam ne seen biir ya dafa rëy rëy rëy ba mel ni ay xur jaan yaag jiit ya ña ngi cay daw saa yu ñu yëkkati ko seen jiit ya seen biir ya lëng leen ñi daanu mu laa jibril ñi ñan la mu ne ko sa xeet wi lañ bokk ñoo daan ñi doon lekk riba lekkat riba ya laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatahu shaytaanu min al massi romb na ñoo xam ne tamit dañoo jël safara di ko jaarale ki seen gémmañ yi muy génne ke seen njëkkee kaaya mu laaj jibril ñii ñan la mu ne ko mooy ñi seen bàyyi deewoon bàyyi leen ay jirim ñiy profité di lekk alali jirim ya a ah, ñoo ngi tamit safara rek lay soppeeku bu muy lekk inna lazina yaakuluuna amwaala yataama xulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sayaslawna sairan kooku alquran wax na ko am na ki ñoo xam ne da leen a romb ñu ngi xëcc seen awra ya di ko di ko dóor ay mbolde nam gën a méttee dugal leen ci menn pax moo xam ne kaw ga dafa xat biir xat biir biir ga yaatu mënuñoo génn mënuñoo duggati ñu leen di sotti am mbugal di leen lakk foofa ñuy yuuxoo ko jooy laaj na jibril ne ko ñii ñan la mu ne ko ñii ñooy njaalokat yi ci sa xeet wi nañ leen war a mbugalee ëllëg la la yàllay wan di la wan portele bi nii kon képp koo xam ne kat nga am nga jabar amuloo jabar ngay njaaloo bu yow yowmal qiyaamee pax lañ lay gasal dugal la ca taxal safara di la lakk doo dund doo dee ñi lakk sa awra yi jël ay mbol de di ko ca dóor ne la remplacer lal bànneexu ga doon bànneexu ke soxna yaakaaree na ko ban na ko remplacer tey sa jooy yii kon nag njaalokat yi nañu bàyyi njaaloo te bari na lool ci jamono ji xale bu la mujj a juddu gën laa ñeme mooy yàlla fukki at fukki at ak ñaar fukki at ak juróom commencé di njaaloo ñi nekk ay mag ñu sàggan di njaaloog jabari jàmbur yi ñii di njaaloog Euh, doomi jàmbur yi te nit ku respecté yaayam respecté doomam respecté ay ay ay rakkam ak i magam du njaalo ndax kii ngay njaaloog yaay jàmbur la benn mu doon ko mbaa dana ko doon si kii ngay njaalook doomi jàmbur la kii ngay njaalook mbokkam jàmbur la su boobaa nag loo bëggul ku ko def sa mbokk mi bëggul ku ko def sa waajur wi bëggu ko def sa doom ji waroo nangu nga koy def doomi jàmbur wala yaay jàmbur wala mbokkam jàmbur te loola bëri lool njaaloo yonent bi nee na juróom-benni mbugal la ci ne ñett yëpp àdduna la yeneen ñett ya àllaaxira la ñetti àdduna yi mu ne njaalookat xar-xaramam day ñëkk du am leer njaalookat day gàtt fan ab njaalookat timit wërsëgam day xat lu mu yaakaar mu tas fu mu dëgmal mu tëju bunt bu mu tëju fëgg mu tëju lu mu laal mu dëgër fekk na lu bon la nga doon def moo doon xut moromam bañ dajee mu daanu ci sa kaw fàttal la sa bunt yëpp nga nekk ci jafe-jafe ñett lu ko nit jëndee jaru ko demal nga fegu nga takk soxna boo ko mënul nga takkoo koor yonent bi wax na ko ne yaa machara shabaab yi man istataa minkumul baata falyatazawaj fa innahu axadu lil basari wa axsanu lil farji man lam yastati fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wijaaun kon loolu jar naa bàyyi xel yow kon amoo soxna demal nga taxoo koor foo tolluy lekk yàpp foo toll di lekk yenn yeneen yi yoo xam ne day jéqi sa bànneex ba yooye yóbboo la ngay tëddee doomi jàmbur yi loola boo lëggee danga nga loo doon juddoo ñetti mbugali àllaaxira ya nag képp kuy njaaloo danga dem safara yu too ko wax booy njaaloo ah, maanaam timit danga nga safara ñetteel bi timit yàlla dafa lay jéppi ba ku tudd yàlla ne ko ba ma ko kenn tuddati génn naa ci moom waxatuma ay waxam li gën a gaaw ci yàlla génn ci ab jaamam rek mooy njaaloo beneen xadis baa ngi wax danañ toll mama boo xam ne safara day ubale xasaw lool ba mel ni mbéd mbéddam mbaam ñëpp naan waaw tey safara moom xeeñ na di ba waa safara di ko wax waaye xet ga ci ñoom lay xem de su ko defee nag ñu ne waaw tey safara xeeñ na di lu ko waral euh, malaaka ya di garde di Malik xamal leen ne xawraay njaalokat yi yu góor yaa yu jigéen yi la yàlla boole ñi koy lakk xet googa tey mooy xasaw ba tax mu ubale tey ci safara day am moment boo xam ne xawraay njaalokat yi rek la ñuy lakk ña ngay lakkaale jëmm ya waaye dañuy ber seen njaalo di leen lakk su ko defee nag loola yaakaar naa dara jarut ko yow mi may déglu njaalo doxoon sa jikko tuubal nga mooy te réccu ko ne dootuma ko defati yow mi nga xam ne tamit duutoon sa jikko maa ngi lay ñaan bul bu sa xel xalaat mukk nga di ko def su ko defee lu ko mooy yëpp mu yóbbu la ci toroxtaane yii ma limal la suuf sax dafay wax ne man luñ ma teg ci poids rek attan naa ko. attan naa bato yi attan naa ferry yi attan naa métro yi attan naa avion yi attan naa bâtiment yeeg immeuble yi li ma attanut mooy nit ku ñeme yàlla dem di njaaloo ba pare di sangoo ndox ma ndox moo may dal sama kaw moom de wan na ma diisaangeem waaye ki def loola bis buñ xaree suuf dugal ko ci man danaa ko wan sama diisaange kon kuy njaalooy sottee ndox mi ndox may sottee suusa wan nga suuf sa diisaa ngay loxo bis boo dee bu ñu xaree suuf sot dugal la ca suuf dana la wan tamit diisaa ngay loxoom yaakaar naa ne loolu dara jaru ko jar naa daw jar naa moytu jar naa tamit wattandiku lii lépp yonentu bi gis na ko gis na menn màgget muy taxan ci yoon wi moom de lam taxan munu koo xenu tama ngay taxanaat di ca dollee ko loolu nag loolu loolu yonent bi laaj ko jibril kii moom sayam wi ni mu rëyee attanut ko amut ko ko ko xen te ma ngay dolliwaat lu ko waral mu ne ko mooy ñu xiir ngi ca sax xeet wi rek lu ñu xam ne la ca kanam lu ñu xam xeeb ko lu ñu xam ne la ca kanam bu ñu lebee bor duñ mën a fay jàllal bi ko bor lebaat bor dolliwaat ca ñooñu ñooy ñu gën a xiir ci sax xeet yoom la yàllay won seen coono ëllëg ni mu mel xenu nañ luñ xàttanut te ña ngay cay dooleeku waat te duñ ko mën a xenu te duñ mën a teqalikoog moom loolu nag kon lebkati banque yi pere bu jeex nga defaat beneen pere prêt bu jeex nga defaat beneen prêt man ngaa dem ba mujj dig ca piir bor ba te yow mii leb laa nga tayle loo xam ne mën naa mu ëpp valeur li nga joxe te mënoo koo fay loola yaa nga ca biir ñay wàccee marchandise ya bàyyi ko Dubaay wala Siin nga ñëw naan bind ma ci lebal ma lii lebal ma laa fekk kër ga dara nekkut fa nga jaay ko war koo fayee ndax leb bor moom jaay fay rek la man wala liggéey fay nga far def ko dépense mu mujj nuur ki sa kaw sa moromi doom sa rakk ñëw di la toroxal ci marché bi dara jaru ko ñay leb tamit ca bëccëg ya leb nga bëccëg bi ñëw taxaw taxawaat toroxal la biir kër gi dara jaru ko ñay leb ca natt ya ñu teggil la nga bañ a fay ñu fekk la toroxal la bala yóbbu police yoon di ca am yoon. dara jëru ko kon képp ku xenu loo xattanut jàllal bi ko xenu xaat di ca dolli rek dugg nga ci xiir ca ñooña maanaam nga bokk jar naa daw image boobu yàlla wan na ko yonantu bi ci yoonu rañaan gi ba muy dem tamit yeggagul baytil muqaddas am na menn màgget mu koy xoo yonantu bi nag woo wuyuwut ko ba mu mujjee mu laaj jibril na ko màgget mi ma doon xoo nag di tabaron ko bi kan la mu ne ko moom de mooy iblis saytaane la boo ko xuyu woon rek sax xeet wi yépp dañu xuy ji àdduna topp àdduna ba bàyyi la fi bàyyi fi yàlla waaye heureusement gestuwoo ko wuyuwuloo ko moo la may sens xeet wi niñ bëggee àdduna niñ ci xiree kon de bu yonent bi xuyu woon xawma fan lañ jëm ba daana wax ne saxaaba yi ne gis naa leen jamono yi ngi ñëw ay mbuubin ngeen yi doon bëri lool yaafus lool mënu leen tus te moo bëri tey la population bi gën a bari waaye tus mënuñu ko wareen werenteeg wax rek ak yàqante ak weerante toroxalante këpp xal li jàmbur yi këpp kees trian sàcc ñii njaaloo ñii naan sàngara def lu bon ñii karta mu ne nag su boobaa noonu ngeen di mel ñu ne ko lu tax ñii bari te duñu am kartan mu ne ñaar a tax bëgg àdduna lool taragal dee lii rek moo tax su boobaa da ngeen di nekk ñoo xam ne ñu nasax ay mbuubin ngeen di doon lu ñëw yóbbuwaale leen tey li fiy jullit ñaari milliar ak genn wàll lu teg suñ boole woon seen doole boole seen kartan gëm yàlla doyloo ko di yëkkatee ndoor di tegandoor kon jullit ñi ñooy yore koom-koom bi jullit ñi ñëpp danañ daw nekk ci seen gannaaw ndax ñoo gën a bërile te ñoo ñoo gën a bëri te ñoo gën a bërile njaboot gu toll ñaari milliar ak genn wàll. ak lu teg amul kenn kenn ku am loola ci sa gannaawam yonentu yàlla Muhammad dong moo ko am ñoo gën a bëri bañ gënee bëri ñoo gën a bëri ñoo gën a bëri xam-xam ndax nag ñoo am téere boo xam ne xam-xami woy njëkk ak woy mujj lépp ma ca téere booba waaye tamit téerewut tey ñu ngi mel ni ñoo gën a réer ndax gëmuñu téere ba la ca ëpp topp ay xalaat yoo xam ne ay falaasafa yi ñoo ko wax ñu naan euh, maanaam diw nee na Euh, xaw ma la Marx nee naag xaw ma lu kenn xamut xalaat yu yàq yoo xam ne lu mu wax bu ëllëgee li ñëw daj ko leneen ñëw dajji ko du waxi tus ñu gëm loola étudiants yi di ko jàng gëm ko def ko lu mel ni ay article yoo xam ne mel ni ay saari alquran yuñ gëm te du tus loolu moo ñu toroxal ñaareel bi ñoo gën a bari leen ndax ñoo ëpp koom-koom ci suñu réew yi rek di réewi jullit ñi la yàlla def pétrole bi te pétrole mooy koom-koom waaye ñàkk gëm suñ bopp tey tax na ña ngay daw. ca gannaaw américain ya nga xam ne dem nañ ba mel ni ñooy seeni yàlla gëm leen fonk leen ci naar yaak nangam boo gé boo déggee anglais sax ñu am sa complexe soo su fekkee tamit da nga ne Amérique laa bàyyeekoo tamit ñu toojal la maajal la boo ne Arabie Saoudi laa bàyyeekoo maanaam yow mi bàyyeekoo Amérique la ñuy gën a fonk la ñuy gën a teral loola lépp li ñu toroxal dañoo gëmut suñ bopp ñoo gën a bëri ñoo gën a bëri le waaye ànd ak loolu lépp mënuñoo dem kon war nañoo seet suñ bopp ñoo gën a bari ci lim ndax ñaari milliards ak genn wàll lu teg ñoo gën a bëri la ci xam-xam ñoo am téere bu kenn amut ñoo gën a bëri la ci koom-koom ñoo am pétrole bu kenn amut waaye terewul loolu lépp mu ngi mel ni ñoo gën a ñàkk ñoo gën a torox ñoo gën a échec te loola lépp bàyyi njàngaleem Seydunaa Muhammad moo ñu ko yóbboo kon nag loolu lépp jar naa bàyyi xel kon loolu mooy lenn ci israaw gi ak lafa fa yonantu bi romb ca baytil ba ca baytil muqaddas wax naa la ko waxoon naa la tamit jiite gim jiite yonantu yi su ko defee boo ma toppee ëllëg ci waxtu wi ci kartanal yàlla ah, damay ñëw ak yow nag ci ah, yonantu yi nga xam ne rek romb na leen ci eh, asamaan yi muy juróom-ñaari asamaan yi ah, fekk na fa yonantu yi nam leen fa rombee ak ba muy dem ci Euh, asamaan yi lan moo ko yóbbu ndax buraaq moo ko yóbbu walla euh, li ñuy tuddee miraaj moo ko yóbbu boo ma toppee ëllëg ci waxtu yi loolu mooy nekk suñ bopp bind inchaa allahu rabbi wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa